lan moo waral ndaje mi d' abord les 48 heures depuis mois lancé nañ ko les 48 heures de Ndiarga nekkul nag sabar wala tànd biir wala leneen lenn moo ko tax a jóg muy développement muy la avancé sunu dëkk ca kanam loolu kese moo waral ndaje mi. ci kaw loolu nag ñun danoo dëkk benn dëkk boo xamante ni mën naa ne bari na ay jafe-jafe parce que Ndiarga moo ngi nekk ci commune de si Sirakh région de Thiès. département de Thiès mais ku fi ñëw tamit doy na waar daal parce que déjà li may njëkk a mooy que dëkk bi amul courant matériel bi laata muy tàkk loolu lañ ci daj jooy sax presque mën naa def naa ko parce que groupe bi yàqoon na gis ngeen jafe-jafe yi andi nañ fi ñetti groupe ba ñeent pour mu soog a tàkk te jàpp naa ne su fekkoon ne am nañ courant loolu na dinañ yomb ak leneen ak leneen. kon d'abord li ñu njëkk lancé mooy. courant lanu bëgg courant lanu bëgg wax leen ko ci kaw courant lanu bëgg courant lanu bëgg courant lanu bëgg courant lanu bëgg li tax ma wax nag mooy que adressé wu ma ko sax mën naa ne comme ñi maanaam dama ko comme que am na opportunité woo média bi presse bi kon am na possibilité tamit jaarale ko parce que mën naa ne c'est la première fois presse daa di fi ñëw parce que suñu site internet yàggul lool. te taxul mu am doole loolu tamit mais moo ngi fii di leen remercier tamit bu loolu jàllee nag association bi am na ay projet am na yuñ réalisé am na projet yoo xamante ni tamit dëgg mën nañ ko te bëgg nañ kuñ ci taxaw bi si njëkk mooy jàkka ji incha allah balay heure bii déwén wax saako na sooy mooy sori na mais mën naa ne fii kii mois rek jàkka ji ay basan moo fi ne incha allah loolu moom association moo ko jël en charge di leen fi def ay moquette incha allah bu loolu jàllee ma commencé ci 48 heures yi première journée bi def na fi set setal dëkk bi ku ko gis xam ne taaru na set na macha allah fii yëpp set na set setal nañ dëkk bi set setal nañ armères yi en fait def na reboisement bii mooy troisième édition ñu def reboisement parce que premier reboisement bi tamit macha allah di leen remercier ñi nga xamante ni. parce que garab gu si dañ ko teg ci loxo toppatoo nañ ko màgg ñu ngi lay remercier xam naa ci kanam dina am nu def ak yéen. bu loolu jàllee projet association bi li mu dëgmal mën naa ne ñett yi moo ci moo ci nekk dinañ ca dem nag kuñ ca fekk ña nga ca kuñ ci fekkut ñanga nga ca waaye nag buñ sañoon waa njaar ga gépp dëkk bépp ngir ñëw ànd kook ñun. muy que mbaar mi al azar bi xëy na nag ñoo ngi ciy soog a wax parce que langement yi yàgg na comme ñuy laaj natt yeeg yooyu. fii leen amee euh, kii opportunité wax ko mbaar mi parce que 7000 francs lan waxoon pour ku ne mais ñi nga xam ne ñoo forontoon bind ñi si teg bariwul te biñ fayee oustaz bi maanaam buñ ko fayaatee presque day jeex te ñëpp buñ tegoon day mën a fay at mépp loolu dinañ ci dugal suñu loxo baax loolu ci man dinañ ko def ànd koog yéen parce que ñu ñëpp ñoo ko bokk bëgg nañ ci tamit kuñ si jàppale ndax soxla nañ yeneen classe parce que al azhar benn salle kese la am ñoo ko commencé ren soxla nañ en fait beneen projet bi te mooy armerier bëgg nañ ko miiree bëgg nañ tamit ñëpp ñëw jàpp si xam naa après dina am yun lancé mais suñ sañoon daal lépp loo xamee lancé nañ ko dëkk bépp ñu ñëw jàpp si parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk defar moo ñu tax a jóg armeer yi bëgg nañ ko collecter beneen projet bi nag projet bu mag lan bëgg mu nekk ko incha allah bëgg nañ ko trop trop trop dépp loor nag waxuñu ci am nañ fii benn forage bu ndaw pourquoi pas ñu exploité ko depuis lors moo ngi fi mel ni amaluñu benn njariñ te ku ne xam na ne ndox lu am solo la ndox lu am solo la am na fi benn forage pourquoi pas ñu exploiter ko di fi bay wala sax ñu dugal ko ci dëkk bi loolu tamit waxtaan wu rëy la laaj kon nag ngalawaay yéen suñ mag ñi yéen suñ yaay yéen parents yéen ñëpp ñoo leen ñu ànd liggéey bi ñu liggéey ko parce que am nañ projet yu bari macha allah beneen bi mooy sëni à partir d'aujourd'hui sën yi nga xam ne dégagé nañ ko yëpp bëggatuñ ko fay gis loolu moom amul kun koy demandé ku ñun waa dëkk bi sën yi jàppale ñu si loolu moom yéen jigéen ñi ne koom sën yi jàppale leen ñu si bii set setal démb xaw na noo sonn billaaxe ñun ñëpp a sonn jàppale leen ci loolu rek am na sën yoo xamante ni nag doon li jëndi tracteur pour mu tasal ñu ko waaye mu jël anto xëy na nag incha allah beneen édition deux éditions yi jàll yëpp sax ana ñoo ngi koy lijjanti pour tracteur dégagé ñu yéen seen yoo ne suuf la moo fi ne ko suñu bopp na nag mais incha allah dina ñëw lancé nañ ko deuxième fois mais incha allah xëy na beneen édition leneen nag li may waa tamit mooy association bi yéen ñi sol seet yi ak yéen ñu toog fii nekk nekkul ne yéen ñëpp tamit da ngeen ci bokk mais ñun ñoo bokk dëkk bi defar mooy tax a jóg mais buñ sañoon ngeen volonté wu bokk ci association maanaam jënd carte de membre parce que tant que jëndoo carte de membre mënu ko bokk mais it liggéey bi ñoo ko bokk soñoon daal ngeen jënd carte de membre bokk ci association bi yéen ñëpp nag góor jigéen mag ndaw nekkul association génération parce que ti seet ko xool ñi ko sol am na sax ñu am 10 ans am ñu am 40 ans wala 50 loolu duñ ci dara defar moo ñu tax a jóg rek ginnaaw bu loolu jàllee nag maa ngi leen remercier de passage yéen ñëpp. association bi ngeen di def ñun dañ cee war am sax carte de membre kon ñun fii lañ waaw di di kontaan nag bu baax ci considération bi ndax nit moom bu la nawloowul rek surtout nga nekk jëmm ju xeebu du la jox cër cër bi nag kowe na ci ñun lool rëy na ci ñun lool tamit. mais kontaan nañ ci aussi trop di sant président association bi góor a ñu ngi koy sant di ko gërëm malgré ci yaram ak tegginam ak mbaaxam ak am yitteem ndax bi ma bi ma nee ci invité d'honneur yi nga bokk chaque jour mu ngi may soññ des fois sax ma nekk ci liggéey du ma sax am temps tontu ko mais loolu taxut mu am benn kii wax dëgg si yàlla ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaar yàlla yàlla na ko yàlla yàggal seen kënam ndax. gan moom ay bëtam la yor te ñun suñ xel dal na ci lii di nuyu Fallou baar la parrain di jour di ko sant moom di ko gërëm ndax jataay yu mel nii yàgg nañ cee daje mooy ku am yitte di ku am ku am jottali ndax yaakaar naa ne par rapport ak yeneen politiciens yi nga xam ne élection ba élection lañ leen yi gis ñuy taxaw nit ñi wala ñuy dem ci yenn activités yi moom yaakaar naa melu noonu mu ngi ci lépp kon yàlla ko yàlla taxaw ba li muy wut ci commune yàlla na am ba am ci am ndomb tànk ministre ba présidence yàlla na ko yàlla defal di sant tamit aussi sama délégation wax dëgg si yàlla sama ku ci mel ni làmp làmp njaay parce que dama koo fekk ci activité ma ne ko jógal mu jóg mënuma koo fay di sant tamit suñ président association Mali Ndiaye tamit naka noonu di sant tamit sama délégation yu jigéen ñi ku ci mel ni sama yaay Ndey Awa moo ma accompagné ak sama mag Xadi jóob ak ak maam say jóob ak sam ak suñuy soxna kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm aussi tamit di am mbégte bu baax ci association bi activité yi ni mane ndax am na solo lool parce que li ngeen fi tudd lépp am na solo muy reboisement yeeg nettoyage cimetière yeeg set setal beeg yooyu yëpp am na solo parce que yooyu yëpp boo jëlan benn tey ji mën nga cee waxtaan ba suba du jeex ndax tey ji garab gi suñ ginnaaw rek ki ko fi jëmbatan mën naa ne mën naa am nekkatu fi te ay nit ñu ngi ciy jariñu ba léegi ay nit ñu ngi ciy faju kon donc loolu jëmbat garab tuyaaba jo loo xam ne ni kenn xamut fu mu yem pare tamit nettoyer ay cimetière te ñun ñëpp fa la ñuy mujj yàlla na yeex ña fa yàlla leen yàlla yërëm dañ leen di ñaanal rek yàlla yàlla àggale leen seen activités yi ngeen sumb yëpp yàlla defal leen jàmm taxawu leen vraiment lii am na solo te ni ko góor a waxee nag ngeen gën a góorul rek ndax lii yombul parce que def lu baax moo gën a jafe te aussi tamit booloo moo gën a jafe mais comme li ngeen am nii dafay dafa yombut parce que ñu bari bëgg nañ ko te mënuñu ko am kon gën leen a góorlu aussi di sant médias yi fi ñëw yëpp di leen gërëm. tracteur pour jër bagage yi xañ na ñàkk cee waxtaan waaye su ma ko yegoon di ngeen ko am bu soobee yàlla waaye nag weesul dégg naa ko fu ngeen ko jàppaatee wax leen ma ma def ko bu soobee yàlla. dégg naa ngeen wax fi jàkka mu nekk lu sensible. ndax diina ji moom ñun ay dongalan ay doomu dongalan bu ngeen demee ba xalaat ne mokket yi ñaataa koy def bu ngeen ñëwee naa ko yég lu ma ca mën dinaa ko def moo mënul def léppit bésu tey bii démb ci ër bii ñu ngi dëkk bu ñuy wax jol ñu tudde ñu fa ay jàng waaye kon di ngeen gën a kontaan waaye dinaa leen jox ñaar fukki junni muy 100000 francs jàppale leen ko enveloppe donc enveloppe bi ñoo leen ko jàppale euh, leneen li ci des mooy ñi fi nekkoon sànq di def présentation présentation bi macha allah am na solo moo xam ci santé bi la moo xam Saliou Bakhoum bi nga xamante ni moom laa waroon a njëkke parce que su ma ñëwee njarga grâce à lui mu nekk fi suñu représentant di ku am xam-xam di ku am yar di ku bëgg njarga foo ko fekk nag développement lay wax Saliou guddi suba ak ngoon du wax lenn lu dul développement ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm mu nekk suñu représentant fii ci Ndiarga. gisee dëkk yi may sawar ba buñ ma invité damay daw ñëw muy njarga muy jol gi ma demoon démb ci jàng yéen ma tuddee dañuy dund injustice. ndax fi Sénégal toll fi réew mi toll dëkk bu toll nii ci organisation mënta am courant jékkul rafetul moo tax ma bëgg ko jàllale. wax naa ko ay yoon duma ci deñ na ko nit ñi jàllale balaa ren di déwén njarga dafa war a am courant. parce que ci dëkk bi lañ bokk ci commune bi lañu bokk te ay jàmbaar lañ li ci des nag mooy fulla moom moo koy màttali ndaw ñi fi nekk ay jàmbaar ku leen fekk ci organisation bi ñu def nga xam ne lii congo defu ko cuune defu ko booloo mooy li ëpp solo te ku ñëw gis ne booloo ngeen dem naa ci ay dëkk yu bëri waaye fekk fa mbooloo mi ngeen am ba pare woote seen ay wayjur bàyyi seen lépp ñëw wuyu si leen seen ab yar la seen fulla la seen fayda la jàpp leen foofu te leen bàyyi lu dul yar lu dul fulla ak fayda man ànduma ci loolu te ku ma ci woo duma la wuyu man nag defuma politique gu ànd leen ak man politigukaay leen ñu ànd liggéey bi may nekk fii ne damay politique di laajte mairie bi bi ma tollee ku ma tourné gis ay candidat mu nekk fukk ba élection yi jàllee bu ma gestoo du ma gis kenn fu ma dem man da fay nekk waaye du bàyyi de dama daan dem ci étudiants yi bu weeru koor jotee di leen yóbbul ay ndogu élection yi jàll ñu ne bu jàllee du fa dem élection yi janvier la jeex koor gi nekk février ma delluwaat yóbbu ndogu li xam nga lu ko waral li ma boole ak commune bi du politique élection bu jot bu leen neexee bu leen ma votel waaye li may def dama koy def bu soobee yàlla ah, waaye man maa gëmul gis dëkk bi ni mu mel bu élection jotee ñu ñëw ñoom ñëpp ku nekk naan mën a mën a bu jeexee kenn ku nekk dellu sa kër toog te na nga bëgg commune bi loolu du dëgg ab dëkk boo ko bëggee daf lay jaral xool jafe-jafe askan wi nga démb fa ma demoon ñi fi nekk di dekk ay politiciens yëpp kenn ku nekk jox na la invitation d'honneur kenn tegu fa sa tànk ma ñaawlu ko dama ne bu ngeen bëggee commune bi da di jariñ commune bi balaa élection jot wallahi képp kuy politique ci commune bi jàppal ne dootoo toog ndax boo bëggee concurrence ak man di nga nekk ci terrain bi bu fekkee ne dañoo bëgg politique tamit dëgg ci ñoom dina nekk ci terrain bi ndax man duma ma jóg ci terrain bi ci terrain bi laa dëkk fu ma nit woo lu mu sori sori lu mu guddi guddi dinaa ñëw te lu ma ca mën dinaa ko def na ngeen góorgóorlu ni ñu mag yi Sall def ba nekk président de la république Ousmane Sonko def ko ba ngeen koy dégg fu nekk Idrissa Seck def ko keneen def ko war ngeen mën a fexe yéen ngeen doomi njarga ak feneen ak feneen war nañoo mën a dem ba egg foofu noonu ëppalewu leen ko na ngeen góorgóorlu ngeen jàng góorgóorlu leen ngeen jàng te xam ne ëllëgu réew mi ci seen ay loxo la nekk man ci loolu laa leen di ñaax ci laa leen di woo góor a lépp lu ngeen nekk suba ba ngoon muy bëccëg muy guddi na ngeen ma woon naa ko yëg projet yi nag comme ni nga ko waxee amul benn bu leen jomm bu ngeen mënta def te bu ngeen ci tàmbali naa ko yëg kenn duma ci ëppale bu soobee yàlla muy armeer yi muy école al azhar bi ngeen di wax muy jàkka ji bu ngeen ko tàmbalee waatal naa la fii ne kenn duma ci ëppale nee leen ma lii ngeen di def rek lu ma ca mën dinaa ko def bu soobee yàlla te dama koy def te yàlla rek tax man dong daara folliku am ak ñàkk loolu yàlla moom moo koy def bu tuddee ne dañuy nekk meeru njëleen seex ala kulli al day am waaye nag nañu nekk ci dëgg tey wax asken wi dëgg soxna yi aar bu ma ñëwee njarga nag li may gën a frappé mooy jigéen ñi ni ñu taxawee ñëw naa fi ay guddi ñu toog ak man ba yenn waxtu yi bëgg naa seen association bi wala boog seen mbootaay gi ma xam présidente bi ñu toog waxtaan ma xam lan mooy seen soxla ñu xool luñ leen ci jàppale parce que yéen ñu jara jàppale ngeen loolu nag góor dama bëgg su ñu jógee fii ñu gaaw ci nga waxtaan ak ñoom ñu xool naka lañu leen mën a jàppale bu soobee yàlla ñu jàppale leen parce que jigéen ñi kat ñu jar jàppale leen parce que ñu ëpp ci ñoom ñoo yor kër yi ñu ëpp ci ñoom sëriñ mi ngi wax jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel moo xam ci togg mi moo xam commune bi amul dara boo demoon ci yeneen communes yi nga xamante ni jigéen ñi dañuy am fu ñuy xëy wala am lu ñuy jàpp wala ngay dégg ay financement fii doxoo ba dégg fi financement déggoon naa fi baax ak naes nag ñuy wër di laajtey carte d'identité naan dañuy jàppale xaw ma jigéen ñi waaye carte d'identité yooyu bu ngeen ko joxee ngeen ko ñàkk ku ci dégg financement dama wax loolu ci lan la bokk ñëw dajale ay carte d'identité jàmbur yi naan leen dañ leen di financer DER ak léegi déggoo leen ko Macky Sall def na fi fukk at ak ñaar financement yi ngeen di dégg benn dugg ci commune Ndiéyène Sarax war a boobu bu fi duggee ci ñam jaar lekk nañu ko ngeen dégg ñu naan xëyum ndaw mi ba ne 65000 jeunes man déggaguma jeune bu ne ma ci xëyum ndaw mi la bokk nguurug Macky Sall la falo amul waa ñun dañoo bokkul ci commune bi wala déet élection jub si ñu ñëw di propagande naan yoon beeg yu kenn xamul man newuma ci ay caaxaan parti bi ma bokk di AFP biir Benno Bokk Yaakaar la bokk mais man dara lu nekk ay caaxaan newuma ci nanu waxante dëgg njëriñ si rax kenn faalewu leen ñun nag ku ñu faalewul duñ la faale ñàkk ñu fay naa da faale ñu man leen a faale faalewu leen ñu leen ginnaaw seeti ñu faale te fulla ji sax lenn la mooy ñun dañoo bëggatul di topp ci ginnaaw kenn dañoo bëgg a bokk comme ñëpp dañu ne képp ku fala faloti di fale te faloo ñu ñu bàyyi la wan la ginnaaw ni ñeneen ñi mën a def xomb la nii am na ay ministre njëyeen sirax ba mu dee njëyeen sirax ba tey déggoo leen fi directeur général déggoo leen fi ministre déggoo leen fi député waaye ñun xanaa bëgguñu dara ñu leen jàngi xam lañu war a xam bëgg na ñun dañuy toppe rek man su ma déggee nit ku naan jàppale leen Idrissa Seck man dama nga naan nit ñi booy jàppale diw lii laa ko jàppale dinañu leen jàppale góor wax dëgg yàlla maa ngi lay bàyyi xel bi may joxe Euh, sama programme ci commune bi dama ne woon commune yi ñu wër yëpp lu mu néew néew am nañu rajo communautaire ñu ne rajo sax amuñu ko ab jeune jàng yeewu daan ne moom mooy ñëw indi fi site internet bu njëkk ci commune bi xam nga ni kii ku ko newul jaajëf réer nga ndax li mu xalaat am na ñu ko waroon a def bu yàgg defuñu ko moom moo ko njëkk a def bi may woo di ma wax waxu association bi dama ne ko association bala ngeen a mën a wax ñu déglu leen da ngeen am ay kayit dinaa leen boole ku leen jàppale ba ngeen am ay kayit léegi nag seen association dañ leen a reconnaître au niveau national da di def di dindi te kenn du ci man dara bu soobee yàlla damay jënd carte de membre te 10 000 francs laa koy jëndee bokk naa ci association bi bu ngeen dee cotiser bu weer dee wax leen moom ma cotisé comme ñëpp. lu ngeen fi xewle mu jëm ci association bi wax leen ma ko ma ñëw doyen Serigne wax na ko li ci des nag mi ngi seeni loxo bu ngeen bëggee ay gumba di continuer di ñu tañax tañaxee fu ñu dugg yéen la bu ngeen bëggee nag mu leer nañ xam ngeen fi ngeen di jaar yal na yàlla sap jàppale ñu dimbale ñu ba li ñu bëgg ñu mën ko matale jërë ngeen. chers membres de l' association des jeunes solidaires pour la développement de Diarga. chers Je suis honoré de prendre la parole devant vous en cette fête des 48 heures qui est parrainée par Moussé Faloubar. Cette occasion est un moment de célébration et de réflexion sur notre engagement envers le développement de notre village Ndiarga. Ndiarga est un village qui fait face de nombreux défis notamment le manque d'électricité, Ndiarga est une village qui fait face de nombreux défis, notamment le manque d'électricité et d'autres besoins essentiels. En tant qu'association, nous avons la responsabilité de trouver des solutions, de travailler ensemble pour améliorer la situation. Cette faite est l'opportunité parfaite pour rassembler la communauté et discuter nos projets futurs. C'est aussi l'occasion de reconnaître les efforts de ceux qui sont déjà impliqués dans le développement de Ndiarga. En ce jour solennel, l'association des jeunes solidaires pour le développement de Ndiarga adressée par ma voix ses vives salutations et je vous remercie de votre présence. de ces autorités et bénévoles ne cessent d'aider, d'accompagner et d'intégrer ses membres dans la recherche perpétuelle du savoir et pour qu'ils puissent assurer la relève. C'est dans ce sens que nous, membres, sommes réunis et avons décidé de l'organiser de ces journées communément appelées les 48 heures de Ndiarga. En effet, les 48 heures fussent l'objet d'une large discussion et d'une réflexion profonde afin que l'organisation ne soit des moindres et qu'elle puisse toucher les sensibilités, à savoir les catégories sociaux, professionnelles et opérer des changements dans tous les domaines sociaux, économiques et politiques. Les 48 heures Tendiarga constituent un moment de retrouvailles, de communion de tous les fils de notre village, de village sans exception et tous obéissance confondus. Cet événement renforce les liens au sein de notre association et mobilise notre communauté en faveur du, prog du progrès. En travaillant ensemble, nous pouvons surmonter les difficultés et bâtir une avenir meilleur pour Ndiarga. Merci à Moussé Falobar pour son parrainage et tous les membres de l'association pour leur dévouement. Ah, je ne vais pas terminer sans remercier nos invités d'honneur, à savoir M. Balassène et toute la délégation, et Monsieur, la délégation de M. Mamadou Tal et la délégation de M. Magaiba, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Vive Ndiarga, vive l'association des jeunes solidaires pour le développement de Ndiarga. Je vous remercie.